ndax jëwriñ nga yoo xamante ne tamit jëwriñ ju ànd ak ndigal ndax sëriñ Cheikh mi nga xamante ne nii moo fi nekkal sëriñ Saliou dañu koy ñaanal fan gudd wu ànd ak wér-gu-yaram mm-hmm. ak mbégte moo xamante ne nii taalibe yëpp am nañ ko ci moom mm-hmm. ndax wutu sañ Saliou ni ko sañ Maxtaar waxee ak sëñ mm-hmm. Habib xam ne ne yombul ndax koo xamante ne nii fukki junni donga ak ñaar nga fi bàyyi ñooñu ku leen donn boole kook say dongay bopp ya nga yoroon jàmbaar dëgg dëgg la moo mën a yenu loolu Mm-hmm. waaye yemul nag ci doon leen rek waaye dafa dem nag moom bay yokk mm-hmm. ndax sëñ Cheikh boo demee tey xel koom mm-hmm. daara yi fa sëñ Saliou bàyyi woon ma fay tabax yeneen daara yu yees yoo xamante ne nii day fees dell ak mbooloo muy def ci ñoom la sëriñ Saliou Mbacke daan def ci ñoom kon bokk ko kenn ku nekk xam na ne maanaam waagal nañ ko ndax sëñ saali way sama wayjur doy na waajtaay waaye nag liggéey na liggéeyu boppam sonnal na sëriñ bi ñaqal na sëriñ bi mhm. ba am ngërëmal sëñ bi mhm. bi sëñ bi ñibbee tamit mhm. kenn ku ne xam ne nag yoon wa sëñ bi joxe ñan rek ca la jaar taalibe yëpp suñu xel dal na ci moom ñun ñëpp ñu ngi maasal di ko ñu ngi maasal di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi tam mottali yéenam sëñ Abdou Ndiaye ci tënk yéen ñi nga xamante ne nii kon man nag ne mag ñi muy sëñ Abdou Diop mi nga xamante ne nii ñoom sëriñ bi ñoom la joxoon daaray njàppandal ñuy yar di jàngale euh, daaray got sëñ Maxtaar mi nga xam ne moo nekk daaray njàppanal di yar di jàngale mm. ñoom la leen waran day mm. def nañ ko ci yéen mm. yéen ñi nga xamante ne liggéey bi egsi na ci yéen fi mu nekk nii ban jàngat ngeen am ci tolluwaay bi nga xamante ne daara gi toll na ci bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu eh, te di leen siyaar tey feeñal sunu mbégte bu rëy rëy nag eh, ci jataay bi nga xam ne teewe nañ ko Euh, lu baax daa jafe day mel ni boo ko bëggee rek seytaane dina la jéem a gàllankoor lu man ngir nga bañ koo fekke euh, di sant sëñ Moustapha Diop mii nga xam ne moo ñu ko yëgal euh, ma bëggoon a ñëw sama oto amee gàllankoor ma wax ko ko mu ne ma téem yónnee bokk kon loo noo dafay pexe ba ñëw ma ne ko comme li ñuy def ñun ñëpp ko bokk kañ bàyyi rek ma jéem ndax li nga ciy wut lañ ciy wut ñu koy sant bu baax ak jéem gi muy jéem ci saxal turaas bi ñuy sëñ bi bàyyee ak nu ñuy def ba jot lee ko ñu ci des loolu sunu warugar la ñun ñii sëñ bi yar beroog ñun def ci ñun ay mbir dem na fi mu war a àggaat mi ngi aju sunu farlu ak sunu xam ak sunu dogu yonente bi alayhi salaatu salaam daam ñu ñu bokkal ñu koy wax aali rasul am ñu ko jamonoonteel te gëm ko ñu koy wax sahabatu rasul mu am lu mu def ci ñoom bi mu fi jógee ku ne rakkaaju ku ne seet fa la fa la fa la fa gën a jafe gën a dëgër nga dëgmal ko not sa bakkan fexe ba lam defoon ci ñoom nga def ko ci ñoom moo tax ñu ngi leen di siyaar sëriñ Sohaybou ñu ngi lay siyaar sëriñ Mokhtar sëriñ Abibu tey jéggulu jataay bi ma ànd ak yéen toog ci kaw di sëriñ bi ni bul toog ak man ak akbara ak wala boog man yakunu ahshama ñaar yëpp nag mi ngi ci yéen ndax kii daa jige lool waxuma la mageel geeg kilifteef gi mu nekkoon ci ñun waaye sëñ Mat Lamin Jóob na ko ko xam a dëgg yàlla ko gis Abdou Ndiaye toog moom ci jataay dina la jaaxal sëriñ Souhaïbou bu muy tamit kiimaan la xam nga sëriñ bi ñu xamut dañuy jàpp ne daa wuti bëkk néeg waaye jëli wutub jàmbor ngir teg ko ci këram kum jër rek am na cosaan lu ko waral sëñ sëñ Tuubaa sëñ Saaliwu sëñ Tuubaa la bëgg bëggeel googu mu bëggoon moo tax euh, man de man de ba may ba may ba may nekk ci daara ji ay ay soixante-dix-huit soixante-dix-neuf ña gisoon muy ànd ak ñoom ñëpp am na lu leen lëkkale woon ak moom ñoom sañ Mbàkke faa jama ana moti sëñ Modou Mamoun ñag mii daan na ko lëng ñu bari la daan àndal ci kilifa yooyu moo tax moom mii li ko jigéeloon ak sëriñ bi duy pexeem du dara waaye sëriñ bi xam na la muy def sëñ Maxtaar si euh, moom moom kii man dëgg la ndax xam nga li li borom maqaama wax ni ñaar yi ayib la ci wax mooy mooy xam loo mënta leeral wala xam loo xam ne sa làmmiñ am na jafe-jafe ci leeral ko tibiyaan ak bayaan leeru xol ak leeral ko ci làmmiñ ñaar yëpp daje daje na ci moom ñu ngi sant suñu kilifa yii nag nga xam ne ñu ngi fi tudd nga seen tur waaye rafetlu nañ seenu teewaay sëñ sëñ sëñ Amsatou Sylla mi ak sëñ Minikat waaye sëriñ sëriñ sëriñ Abibu damaa gis addis boo xam ne Abu moo ko so moo ko soloo lim ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam dani man kazaba alayya mutaammidan koo xam ne fenal na ma maanaam waxal nga ma lu ma waxut wala nga seere ci jataay boo xam ne nee nga am na ci man te amut falyata bawwa maqaduhu min an naar faa googu nag yéen ñiy jàngale naax wa xam ngeen ne fasihatul kalaam la mooy bu lii amee rek boo yeboo nga xam ne daal daa li ciy daal di topp mooy lii daa xew nag daa xew te ñun dañoo jige lool koo xam ne da nga ne nekkoon nga ci daara ji sëñ bee ma yar boo taxawee wax lu juuyoog li am rek musiba dëgg la loolu dafa rëy lool wa man aslam man iftara ala allahi kasiban alxuraan dañu ku gën ku gën a mën a duur gën a mën a kàcc kiy waxal yàlla lu mu waxut waxal yàlla mooy ndax yàlla du du du du du arab mi yen waaye li ñu jubla wax rek mooy yonent bii nga xam ne moom la teg suñ kanam ni nit a ngi nii goo xam ne ci yéen laa ko tànnal lu mu wax maa ko wax lu mu tere maa ko tere kooku ku ni moo ne nangam lu amut kooku amut lu mën a dox digganteem ak sawara dafa am loo xam nag dama ko bind da waxi sëñ Saliou la yoo xam ne dama dama yaakaar danañu itteel ñun ñëpp dangaa wax wax ju wax ju wax ju doy waar ci yar ci ci kii ndax dane am na ci barab yi barab yu dongo yi ñoo xam ne dañ fa daan nekk duñ jàng duñ def dara waaye da ngay jékki-jékki rek mujj gis leen ñu baax moom moom wax na ko ci biir xam maanaam waxam jëpp dëgg la waaye nag nit booy wax da ngay da ngay cité li nga ci mën a wax rek xam nga sëñ Saliou daa am bis boo xam ne da doon yeewi mbooloo moo baree bari lam ca waxoon nag daa doon wax ju itteel joo xam ni dañ koy wax bañ xam mbir yi ni muy demee ak ni muy demee ndax dani sëriñ Saliou moom moo nettali ni sëñ Touba dafa mosa woo sëñ Modou Moustapha ak sëriñ Fallou biñ ñëwee bay dellu mën leen dama dama bëgg ngeen liggéeyal ma ci nit ñi ni leen bu ngeen demee Touba da ngeen sanc ay daara te liggéey liggéey te ngeen liggéeyal ma ci nit ñi ni yéen ñi ma jur li ma leen liggéeyloo mooy ci mooy ci nit ñi kon digal na leen san sanc daara digal na ci nett li bi tamit ni moo leen liggéeyloo ci nit ñi moo tax comme sëriñ bi ni nga waxee ne daa teel a samp daara ak li nga xam ne ku wax daara sa xel nekk ci moom wax dëgg yàlla loolu asli yan moom da koo nekk ci bi muy bi muy bi muy bi muy bi muy bi muy bi muy yeewee kon daa mel ni nit nit pexe bu nit mën a am jàpp naa ni mënoo am pexe bu gën a rëy teg ko ci yoon. yoon wi nga wax yoon wu leer la nit bu jàngee yaru nangoo liggéey amuk ràññee fa mu dem mën a jaxasoo jàpp naa ko de damaa mos ak sëriñ bi mu ne ma yii moom lu waaye nit gàtt gàttum xel war nga koy bàyyi xel mooy nga xam sa bopp awalan nga xam yow yaay kan xam li nga man xam li nga lot xam li nga mënut koy jëflanteel tamit nga xam ni mu la jàppe ñaari yu moom boo xamee rek di nga am yoon woo mën a dem bu la nit ki jàppee dof dinga dem bu la jàppee ku baax di nga mën a dem bu la jàppee kàccoor tamit dinga mën a dem parce que yow xam nga sa bopp ba noppi li ci des nag mooy koy jëflanteel rek fexeel ba xam loo mën a doon léegi nag comme sëñ bi war nañu ginnaaw ñii ñu jàngal magal nañ ba ku ne yaa ngi toog fi nga war a toog am na ci ñun ñi yaroon ñoo xam ne ñu ngi tollu ci diggu doole kër gi lépp ñun la war lu ci yàqu ñun ñii ñooy responsabilité bi am na lu ñu war ci sëriñ bi am na lu ñu war ñun suñu bopp am na lu ñu war ci mag ñi ñu yaroon am na ñu ñu war tamit ci ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci roon nga ndax xañ na jaxasoo gi am suñu diggante ak ñoom li ci ëpp li ci ëpp du faral di di di war ci ñun man de sëñ bi maa ngi fàttaliku ne tàng ne sama kaw benn yoon tàng mu metti nag xañ na sëñ Moussa Diop dana ko wax xam nga saaba yi liñ liñ liñ tanee woon dañ daan indi nii yonent bi da gërëmoon nañu ci lii waaye boo defee nangam bi si itam sëñ bi defoon na ma lii wax dëgg yàlla nag sëñ bi xam nga yéen ñëpp xam ngeen ni meloon mooy mbir yi moo ko yoroon boppam bi ñu nekkee ndokaa da daan def ku bàyyi daal bàyyi jàng alxuraan sax laay wax xam nga mi ngi dëkkoon boo duggee ci kees kees gu njëkk gi néeg néeg yooyu sëñ Sam mujjoon a dëkk muy ñetti bâtiment yooyu daa dëkkoon ci bi ci digg bi ak ba féetee ba féetee soowu bu nekkee bi ci digg bi booy dugg ci keesu juróom-benn koñ gi daf lay gis bi ñiñ na ko bàyyi nañ jàng alxuraan ñëpp koy bind te boobu sëñ bi guddi gi am jot waxtaan ak yow boo ñëwee fi nga toll da koy saytu ëllëg ma laajaat la ko léegi-léeg nga yam fi mu laaj la sam njàng lu teema ndox da koy gëstu yow sa bopp nay njëkk yedd waxtaan ak yow ñun ni ko bàyyi nañ jàng alxuraan ñëpp daa bind seeni tur téye bi ñëwee di woo par kenn boo ñëwee mu laaj la dañ ne man da bàyyi jàng alxuraan lu tax nga tàmbalee lay mën la ko ko gàntu la njëkk doo nangu la ci topp noppee da lay woo yeddaat la tegaat la ci yoon bi mu la war a teg li ma jubloo nett li mooy sëñ bi dama dañ maa woo benn fajar ni ma wuyul sëñ bi ma jàpp ni ma daan bësi ni ma ko daan bësi di waxtaan ak moom loolu ma ñëwee sëñ bi nett li ma ta jafe-jafe yu ma def fekk njëkkoon na ak gàmm gum ñëw fii Touba ñuy gàmm mu woo sama benn xarit dal ci kawam xam naa wax na ko ni sëñ Abdou Abdou Abdou Ndiaye moomu am na lu mu def loo xam ne naa ko bi mu ñëwee wax ma ko may jàng tàmbalee absenté di xalaat bu ma demee sëñ bi lan laa war a lay ba mu ba waaye ma dem ba fajar sëñ bi woo ma ni ma dañ ma ni yow da ngay def nangam ak nangam nangam ci daara ji ma ma tàmbalee weddi waaye sëñ bi fi muy jaar kawe dani man ne bañ ma ko waxee góoma ko ndax ni nga yaraw ak sa baay ni mu téel a ci man biñu ne yaay def nangam góoma jaar ma fa kawe foo xam ni maa ngi yàkkamte wax ji wax ji jeex rek ba ma génn ci ni ma ay bu lu mën a am bu ma la ci diggaat moo tax ndoogaa goog bi mu ma waatee ni ma <laughs> dégg naa yaa def nangam ak nangam ma ma ma tàmbalee weddi mu ne ma nag maa ngi lay bu dee bu dee lii ma ne dama ah la tax mu tàng mooy dama ne ko ñi fi nekk dañ ma ñiññi moo tax moo tax bu ma señoon nga bàyyi ma ma taxu daaree nangam sëñ Saliou laa lay waatal de sëñ bi daa tuddoon way daa jóg ni ma ñii ma teg ci daara ji daar ju ne maa fa war a nekk waaye dañ maa doy doy goo xam ne day mel ni jëmm mënti séddaliku waaye kon sama jëmmay séddaliku kon nag ko mëni wut ak ñoom doo mën ak man loolu laa jubloo wax ne kon ba nëga ni jàpp naa ni dara ji jooju dara ji yooyu yéen yéen gëm naa ni loola ba tey jii loolaa nga ci yéen kon war ma jooju war nañ koy sàmm ci yéen di di gàññi ñu àndal di gindi xale yi ci bëggu sëriñ bi xam ni li ñuy wax ak li ñuy def pour nit ñi jàpp ñu dara loolu du dara ndax usul yéene dañuy nett li addis jékkuñu jékk tagg ni rek Abdou Ndiaye nee na sëñ bi nee na déedéet dañuy xool man mi wax ba xam lu ne ci man ba xam jag naa wala déet ki ma ne moo ma wax ba xam am na yeneen jikko yu jaarul yoon yi waaye bu fekkee yow xame nañ la jaar yoon ki nga nettali xame nañ koog jub ak maandu ku mel ni sëñ Abibu mii ak nangam bu nee nangam sëñ bee ko wax kenn du ko dindi moo tax daal santaat nañ sëriñ bi tey ñaan yi di gën a law te ñu gën a takku ci li ñu sëñ bi bàyyee woon a ngi ci fastamsik bi lasi oohiya ilayk lépp luy njariñ mi ngi ci kër gi bu fekkee ñu ngi jàppoon li ñu sëñ bi yare woon jàpp ci di dem man de xam naa ni maa ngi fàttaliku daam ngay di ma wax ni ma boo xoolee sëñ bi jamono bi mu ñuy joxe yére tergal mu ñu joxoon ca jamono boobee mooy jas neer ci jamono bi ñu toll bu daan ñëw ci daar ñun ñëpp xam nañ ni pomme yi mu ñu daan jox ak orange yooyu original yi lay doon yoo xam ni ba tey mosuñu koo gis man de woo na ma benn bis ma ñëw mu yabal ma ci booli boo xam ne mis am xar la ci def ak ko paaka képp mu yabal ma ci miinal nga dong ngay xéewal ak fi yow te wàcc guñ mbàkke buñ tàggoog taraanga feneen gis nga nit pour mu do pour pour mu mën a pour pour nga mën a gindi nit ñi foog nga nuru nit yéen ñii moom man di ngeen mën a nit ñi waaye ak lu mën a nekk ci yow mii boo soloo ni sagar salla boo jë boo sëñ bi la ñuy xase ci yow moo tax am na ku ne ma day yéen seenu solo rafet ak cant la du tiitaru du rëbb adduna adduna ndax ndax ndax ndax ndax siimeewum fiiw joo min asiri sujjóot bokk du yorofal mu jërmoon bi siimaahum ndax ku ne nag boo gisee mandargaam di nga xam ne lëfa nga ci moom moo tax sol gi lu set ak dëkk ji baax ak yor oto baax ak sant la de waaye ku jàpp ni dëdd mooy dof dof lu gi loolu loolu du ni nañu nañuy jub te mel nañ war a mel te xam ne xéewal gi suñu xéewal la lépp luñ mën ci di ko di ci dimbalante suñu biir itam nañ ciy bàyyi xel dëgg yàlla yàlla defal nañu mbooloo moo xamante ni ci lépp luñ bëgg mën nañ ko def damaa gis mbooloo mu yaatu moo xam ne dañ ma ni ren dajale nañ quarante et quelques millions ma laaj leen nu ngeen ko dajalee ñu ne ma 1000 francs la ñuy sasoo par weer dajale ji lu toll noonu damaa jàpp nag ñun dong yeeg yi war nañoo toll ci taxawal loo xamante ni si danañ noppal sëriñ si noppal suñ bopp noppal suñ rakk yi ba ëllëg ku ñëwaat danga nga xam yoonu ngay jaar asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, tabaarakallah tabaarakallah tabaarakallah jërëjëf sa kaddu jaay jërëjëf wax ji waxtaan wi am na solo lool ñu ngi lay ndokkeel te di la masawu coono yi ci yoon wi yëpp mm-hmm. waaye xam na liggéey sa liggéey bi sa liggéey day mel ne suñ jotaay suñ jotaay daaw ba bi bi mu jàllee mm-hmm. sëñ Muntaxa da cee sëñ Cheikh da cee bëgg sëñ Cheikh sëñ Saliou mm-hmm. sëñ mun Mountakha tamit ci lool. ba am ba am na ay liggéey yu muy def nii yoo xam ne sax. te ci waxtaan woowee la jógee la jógee. am na lu mel ni 120 mètres beeg. yooyu yëpp dese na ko leer. sëñ Bass Abdou Khadre ba mu ko déggee waxtaan moom tamit mu neex ci moom. mu leeral ko sëñ Mountakha ba liggéey yàkkali dëkk beeg. waaw soññebaat bi yëpp. ci la jóg kon baax nañ ñaanal sëñ Muntaxa rek uh-huh. yàlla may ko mm-hmm. sago mm-hmm. tey mottali ay yéenam waaye mi ngi mm-hmm. mi ngi taxaw ca tànkee sëñ Saliou jaaroon mi ngi ciy jaar moom tamit ngir ngir ngir dundal dëkk bi xam na liggéey bu sëñ bi def waaye lu ñu war a jëmmal la waaw ndax booy xool sëñ bu tedd bi mhm. sëñ Tuubaa bi muy ñëw fii ci réew mi mhm. maanaam bu réew mi amee tur yu baax mhm. dëkk yi am tur yu baax loolu sëñ Tuubaa moo ko fi indi fekkoon na fi diine lislaam fekkoon na fi ñuy jàngal xuraan waaye nag dëkk kër Makka la kër diw kër diw kër diw waaye nag daaru salaam daaru rahman daarul moxti daaru xuddus daaru salaam tur yooyu moom sëñ Tuubaa ko fi indi fekkoon na tamit ay tur yu baax ci réew waaye Abdul Ahad Abdul Xaadir Abdul bari li muy Abdul Xaadir Cheikh Abdul Xaadir Dieng li Abdul Ahad Abdul Xaadir mm. Mouhamadou Cheikh euh, Mouhamadou Bachir waaw Mouhamadou Muntaqa tur yooyu tamit sëñ Tuubaa sëñ tamit noonu la def dëkk bi mm-hmm. booy xool quartier yi mu mujjee lotissé ok maa ngi koy ra maa ngi koy nettali rek sëñ Bas sëñ Abdul Xaadir naa ko danaa dagale sax liste bi indil la mm-hmm. naa ko Tuubaa toll na ci quartier yi ni ko sëñ bi tudde woon mm-hmm. ñu wax maire bi mhm. ñu defar ay la indiwaat quartier yooyu ok ndax quartier yi mujjee lu si tey yëpp tur yu tedd tedd la ko la ko tudde mhm. te ba léegi nii tur yooyee mhm. day mel nii fi mu nekk nii dafa mëdd waaw toll na ci sëñ bi dégg ko jox ndigal waa mairie bi mhm. ñu def ay tableau carte yi ni mu tuddoon waaw sëñ bi tudde ko noonu sëñ bi indi mhm. mu def xel koom mhm. ci tur yu rafet carte yi mujjee natt yëpp tamit noonu la koy def ci ay tur yu rafet xam naa kon daal ñu tëj te sant sëñ Moustapha Diop nag ñu lay sant bu baax ndax jataay bi daaw yaa ko waraloon yaa ko woote woon soññe ci ren tamit naka noonu yaa ko woote waat soññ ci ànd ko ak suñu magi taalibe yu baax yi di suñu ay jëwriñ di suñu ay sëriñ li nga wax tamit ne buñ bala ñuy dem nañ toog ba xéwlu door a dem loolu kon maa jot li naa ko ci jataay bi sëñ Moustapha nee na am na ay xéwal yu mu waagalan ngir bés bi nañ toog ba xew xéwlu ko door a dem newoon na ma tamit xewal yooyu nag ñi nga xamante ni ñoo ko fàggu naa leen sant mhm. nee na ñetti nit ñoo ko fàggu kenn ki mooy Samuel Ahmed Sarr kenn ku ne Samuel Amé Sarr xam na lim doon ci sëñ Saliou xam na mhm. lim doon ci donge yi mhm. kenn ki di Moustapha Kébé moom Alaaji Babacar Kébé du njuga mhm. kenn ku ne xam na lim doon ci sëñ Saliou xam na lim doon ci donge yi kenn ki tamit di Moustapha Seck moom Alaaji Moustapha ma lim ñëpp kenn ku ne am na doom yoo xam ne sëñ Saliou nga ko tudde kenn ku ne tamit am nga wëllëre woo am ak sëriñ bi jàpp ko kon nee na boog mi ngi leen di sant di sant tamit kilifa yi fi teew